surtout xale yi nga xamante ni ñoom ñooy mineurs ñu nekkoon ca cité mixta rawatina ca jouru korité dañ fa def ay ñaawteex luy ak appartement verdict ba daanu ni ki tey ci suba si ki nga xamante ni mooy El Hadj Malick moom ñu ngi ko teg daan bi nga xamante ni mi ngi tolloog un mois ferme moom lay tëdd prison ak benn amende boo xamante ni mi ngi tolloog un million franc CFA. Amadou Mactar Seye moom deux ans de prison lañ ko dóor boo xamante ni dinañ ci tëdd un mois ferme moom ate moom itam dégg nañ ko benn amende bu un million de francs CFA ki nga xamante ni mooy Teni Hervé Gomis ñu gën xam ci turu Thierno moom deux mois avec sursis lañ ko dóor yooyu mooy daan yi nga xamante ni ñoom lañ teg xale yi euh, moom lañ mujjee teg xale yooyu la tey ci fi nga xamante ni mooy tribunal bu grande instance bu Dakar